sant yi bala may ñëw ci sama gan yi sama jigéen ñi nga xam ne tey lu jiit njaag ñoom ñooy njaag ñoo organisé bis bii tey di bis boo xam ni yàgg nañu ànd ak man 2014 2013 ba léegi ñi nga ànd ak man te nii ni ko imam bu Moustapha Mbour bu waxee foo gistoo foo geestoo ñoom nga gis ko léegi ñoom su ma duggee ci politique ñoom la su ma ci desee ba léegi ñoom la parce que sama xarit Ablaye wax na ko léegi ñun bëgguñu woon sax ñu ñuy tuddee ay on politiques cest ni ay ay politiciens ba léegi on a du mal à penser que nous des politiciens mais jàpp nañu ñun nous sommes des hommes d'État ñu sommes des hommes politiques sax ñoo xam ni dañuy utiliser politique pour agir sur la population bokkut ak ñi nga xam dañoo jóg di utiliser politique pour am lu ñu am loolu rek daa ci ñëwaat su may wax ci samay xarit yi nga xam ne ñoom ñoo ma seet kon sama jigéen ñi maa leen di sant sant bu am tàmbali ci amul amul limite seen engagement seen passion bi ngeen am ci man ak bëggeel bi ngeen am ci man yàlla na ko yàlla fay yàlla na ànd bi egg fi ngeen ko bëgg damay toog ak yéen di waxtaan ne leen ànd bi du pour ay question poste kese mais xam ay nit ñu nekk xale di leen gis ñuy màgg di leen di jàppale di ànd ak ñoom ngeen jóg daanu naxal ku am xew ngeen dem ba tey ñoom ñëpp ñu nekk ay xarit takkandoo nekk benn ba monté benn réseau boo xam ne tey y' a plus de 5000 femmes derrière ci ambition bi ëpp na ko kon loolu man satisfaction ba ci am mooy loolu moo gën a am solo parce que nguur lu mu gudd gudd en général 10 ans 12 ans quinze ans ci la yem te ñun nag li ñuy ànd bi dañuy ñaan dee rek mën ñu ko taxale te yàlla yàlla yàlla na yeex kon maa ngi leen di leen gërëm leen remercier ci initiative bi ngeen ci jël leen ci d'être encouragé dans d'autres initiatives très importantes yoo xam ne on va vers ça et incha allah dinañ ci wut ndimbal ànd ci ak sama xarit yi nga xam ne ñoom laa àndal ñu liggéey Thiès liggéey pour seen i doom liggéey pour Sénégal liggéey pour réew mi kon maa ngi sant madame Sada Diop présidente des femmes maa ngi lay remercier yow ak sa bureau ci la belle organisation qui a été une belle réussite parce que c'était pas évident à sept jours parce que tey mooy septième jour ou huitième jour premier premier vendredi ngeen mën a organiser un événement comme ça te du initiative bu ngeen yàgg a mais ngeen def ko de façon brusque de façon spontanée c'est parce que vous avez mis beaucoup d'engagement beaucoup de passion yal leen yàlla fay parce que toogu leen mais it la belle réussite de cet événement montre l'engagement que vous avez eu pour le faire kon maa leen di sant di leen gërëm di remercier waat encore bu baax a baax soxna Mbadio parce que aussi c'est une journée des femmes le mois de mars on avait l'habitude d'organiser Euh, n'est-ce pas du journée des femmes mais nous avons préféré l'associer en même temps mu nekk weeru koor mu nekk conférence mais aussi une journée dédiée aux femmes ma ci ngeen ci sargal Soxna Mbathio elle mérite largement ça parce que Soxna Mbathio nag wax dëgg yàlla soxna la comme ni ko turam waxee jigéen la ju baax joo xam ni tey na njabootam yar na leen doom nekk génn na fa ay intellectuels de haut niveau ay sëriñ génn fa ay nit vraiment nit la koo xam ne man su ma koy C'est une dame parfaitement réussie parce qu'elle vit dans la tranquillité. C'est une femme brave. bi ñuy politique dafa jóg dugg ci suñu politique te wuti ci lu mu am man gis naa passion bi mu amoon ci ñun ak organisation bi mu amoon ci code bi kon ñu ngi lay félicité di ñaan sa rakk yi nga xam te ñoo jël flambeau bi ñu réussir parfaitement la mission bi leen jox. xëy na Covid bi ak les événements qui sont arrivés après les avait bloqués mais léegi am ngeen déclic pense que maa ngi leen di kon nag jigéen ñi sant naa leen bu baax sant bu amul limite di ñëw nag di sant sama gan yi bu baax a baax a baax d'abord mes militants et les jeunes yi nga xam ne tey organisation bi si c'est parce que aussi les femmes l'ont bien fait mais c'est parce que jeune yi ñoo ci jàpp su ma gestoo gis leen comité d'organisation bi ngay def ba ci démb soo xoolee jigéen ñaa ci woon mais góor ci ëpp mënuma leen citer nag particulièrement mais xam naa ni le coordonnateur mi ngi ci loxo sama frère Diakhaté maa ngi koy seet na leen tout discret nangul ñëw bokk ci biir yi mais maa ngi koy remercier aussi ci engagement bi Pape Ndione vraiment mon frère Bassirou Diaw qui est aujourd'hui très calme maa ngi sant bu baax la gërëm aussi ci engagement bi sant mon frère Moustapha ci vraiment mobilisation ak engagement bi xale ko bi yëpp am baara ay tous les jeunes yi nga xam ne liggéey ngeen ci biir mi maa ngi di sant bu baax a baax nag leen wax ni xëy na yoon bi gudd na mais mu ngi leen rek soobee yàlla Euh, Darou Salam Ersan la zone est comme l'ont déjà symboliquement mon frère Allah est déjà sur le mais aussi seen zone isolée qui qui demande beaucoup de choses gis naa seen engagement bi ngeen ci jël xam leen ni ñun ñëpp dañ nekk ci seen côté seen i doléance dégg naa ko soo yàlla naa ko eggale fi mu war a yegg mu que ensemble ñu ko faj. di remercier nag samay invité di ci remercier ñi fi nekk tey nga xam ni seen toogaay ba mu jeex. wane na témoigné na seen passion ak relation particulière bi ñu am je veux citer mon frère Abdoulaye Guèye directeur général de la qui est un homme social boo xam ni Sénégalais yëpp xam nañu ko xam sama diggante ak moom wax na ko léegi su may wax ci moom damay wax wax naa ko en privé wax naa leen ko yéen ni leen la nomination d'Abdoulaye Guèye c'est l'une des bi gën a bi ma am ci politique à Thiès c'est l'ascension d'Abdoulaye Dièye à un poste de direction générale et je souhaite que ce soit un poste ministériel parce que dafa témoigner benn engagement sacerdotal bu un jeune am dugg ci politique pour servir et non pas pour se servir témoigner aussi beneen type d'homme politique boo xam ni maag moom dañ ci àndoon depuis doomu Thiès 2014 ba léegi man moom Babacar Fall ak ñeneen dañoo incarné woon beneen type de leadership boo xam ni comme ci mënul ci doon rek sa morom dina ci satisfaire te loolu moom xam na ni c'est une satisfaction profonde bu ma am parce que yàgg naa ko témoigner publiquement di ko ko témoigner en privé moo tax tey ni mu ñëwee ci bis bi ni tey yónni une forte délégation dirigée par son coordonnateur national sa présidente des femmes l'ensemble des responsables de son mouvement qui l'ont précédé il boo xam ne jox nañ ko jigéen ñi wax naa ko c'est une première c'est vraiment des centaines de mille qu'il a donné aux femmes pour les soutenir mais ñëw toog teewe ko fekke ko loolu mënuma lu dul remercier ko parce que xam naa l'autre jour wax naa ko ko nee naa ko j'ai directeur général pendant quinze ans je comprends et dans une petite société qui est une société privée mais quand je l'imagine lui diriger une société nationale d'envergure internationale de et avoir le temps de continuer à faire la politique comme il le fait vraiment je lui tire le chapeau ce n'est pas évident may ñaan Thiessois yi aussi comprendre ko parce que un homme n'est pas encore dans des fonctions ak un homme bu nekk ci ay fonctions mënuñu ko juger de la même manière parce que son temps n'est plus le même suñu gisee Ahmed Mbaye xam nañu gis nañu ko parce que nit su màggee day m ay branche branche buñ ci jàpp rek baax na seen saa yu suñu sëriñ daa na gis rek doy mais ñëpp suñ bëggee dem ci sëñ Modou Moussa sëñ Mountakha du mun a sotti kon nag jàpp leen vraiment c' est un homme égal à lui-même moi je le sais et je vous demande de le comprendre dans les missions qu'il est en train de di sant mon frère mon jeune frère monsieur le maire parce que moom nous l'avons soutenu parce que dañu ko digal mais digal bi aussi tombé ak ci nga xam ni dafa correspondre ci ay valeurs humaines son humilité sa politesse et son engagement pour la pour la zone

Yankoba Diatara m'a envoyé un message très important et a envoyé Cheikh pour venir le représenter. Je pense que monsieur le maire de la ville a fait de la même manière. donc jàpp leen ni ñi ngeen gis ak ñi ngeen gisul ñëpp ku ci nekk yónnee na délégation wala woo na ma témoigné parce que bis boo xam ne une journée très remplie moo tax ñoom ñëpp mënuñu teew mais l' essentiel def nañ ko di gërëm aussi Serigne Saloum Dieng Ahmed Saloum Dieng moo fi njëkk teew fi ay xat-xat moom moo ko tax a dem mais jàpp leen ni représenté na sëriñu daara yépp ndax moom mat na ko di leen ci gërëm. samay kàddu dama koy jëmale rek ci li ma sekk Mamadou Gningue li li ma jaral tey ma dagg sama yitte yépp ñëw ndax dama jógee si conseil interministériel pour organisation pèlerinage et dama ni lu mu xat-xat-xat dinaa ko bàyyi ñëw teew seede sama diggante ak yow ndax Thiès dafa xaw a waa nit ñi seen interprétation kenn xamu wante man ak moom musuñu réeroo ci ay wax duñu toog semaine walla ñaari semaine bu ñu déggante mu donc di leen seede ni man ak moom suñu ànd démb la woon tey doogu ñëw sama mag la sama xarit la sama confident la bërki démb rek man ak moom am na lu ñu toog ñu waxtaane ko bu bu dul woon nit ku modeste nit ku yaatu xol nit ku bëgg Cees loolu du ko wax donc tey di leen seedeel ne am ngeen ku baax am ngeen un intellectuel d'une dimension internationale koo xamante ni lu ne mën na ko doon ci réew mi lu ne mën na ko doon ci réew mi te lépp ngi si lépp ngi si kanam donc di féetale sama kóll ci moom ne man ak moom euh, mission bi am ñëpp xam nañ ko mission développement social ñun duñu ay politiciens mais lépp lu ñuy def. dañuy def ngir askan bi doon naa wax sama discours yi ma doon wax ba ma doon doog a def politique ma ni tey Mamadou Gningue bokk na si nga xamante ni jël naa leen référence si wàllu social ndax moom dañ ko cay fekk ñun dañoo ñëw fekk ko mu nekk ci développement di accompagner jigéen ñi di dimbali eh, ndaw ñi di def social. donc tey moom man ak moom ñoo bokk vision bokk gëm-gëm bokk fi ñu jëm donc di leen seedeel ni lépp benn la mission bi. yàlla moo ko teg suñu loxo di servir parce que ñun seetuñu lu ñu am lu askan bi am moom la ñu seet loolu laa gis ci moom muy nit ku ñàkk ki ñaan la ku ñàkk ki ñaan ndax responsabilité yi ma am vraiment félicité na ma ci mais aussi mu ngi ci ànd ak ngir liggéey si ay xalaat yoo xamante ni su ma amee lu ma jaaxal si su si yenn points yi dama koy woo waxtaan ak moom mu ne ma defal nii defal ndane donc di leen seedeel sama diggante ak moom dara nekk ci sama xarit la. sama mag la sama conseil Cees na benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar dañuy waxante lu rafet di defentu lu rafet parce que yàlla la ma dogal kenn mënu ci dara yàlla lu pare na démb tey doog a ñëw dañu àndandoo rek ndax Cees ay nit ñu baax rek fi nekk kilifa diine yi ay nit ñu baax sëriñu daara yi ay nit ñu baax képp koo xamante ni nekk si dëkk gis naa cofeel bi nga xamante ne am nga ko si mën Mamadou Gningue am ko ci man am ko ci responsable politique yi fi nekk ñëpp ndax ñun yi suñu yéene mooy defar dëkk bi ku am jafe-jafe si ñun ngay ñëw ku am soxla si ñun ngay ñëw donc loolu lépp ngir bëgg dëkk bi rek moo tax ñu koy def mënoon nañ dem toog suñu kër yi tëj suñuy parce que am na ñu ko def si bi mais ku mel ni Mamadou Ndik quartier bi mu dëkk xam ne quartier populaire la tëjulul buntam kenn weekend mu ngi fi samedi ak dimanche mu ngi fi ubbi buntam di dimbali ñii di leen déglu donc tey ñii dañ leen a war a jàppale donc ñun bu ñu waxul waa góor kenn waruñoo wax dara suñu noonu ndax te dëkk bi moo ñu ñor Thiès moo ñu ñor te loolu vraiment di leen ànd ak moom liggéey boo ba Sénégal mu jëm kanam kàddu yi may daagale rek mooy kàddu jàmm ndax Sénégal dafa toll ci tournant boo xamante ni sànq oustaz mu ngi koy wax tey dañu jàpp ni son excellence le président Macky Sall moom la fi yàlla teg ñu gis jéego yi nga xamante ni def na ko ci Thiès def ko ci Sénégal def changement bi nga xamante ni indi na ko ci dëkk bi projet yi nga xamante ni mu ngi ko fi def pour Sénégal mën a nekk un pays émergent ñun nag li ñu gëm mooy képp koo xamante ni yaa ngi liggéey dëkk bi ñun suñu mission mooy accompagner la ba nga réussir mission boobu ndax loolu lañ gis son excellence le président Macky Sall sama frère Modou Dieng loolu la gis sama frère Sayer Mangane loolu la gis ñun un Sénégal émergent moom lañ wax mais waxuñu Sénégal boo xamante ni ay ndaw yi sànni ay ndaw yuy taal ay kër ay ndaw yuy taal ay pneu loolu taxu ñu jóg ñun dëkk boo xam dañ ko war a construire te construction boobu nag dafa war a dem ci mandaale yooyu dem ci xel yu rafet yi ñu yéenante jàmm xam ni kii ñu fi teg muy liggéey di son excellent président Macky Sall yàlla moo ko fi teg aussi bu bu yàlla dogalee ni jeexal na dafay jeexal mais nit ki nag buy liggéey nañu ko jàppale ci muy liggéey wante bu ko kenn taal donc daal loolu moo doon message bi di bu baax di sant ñëpp di li war woon jikkoom rek tey moo di ne dañ maa tànn ma nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar ma ñëw fii dox guddi ànd ak moom ñu toog waxtaan waxtaan wi ñaarul te liñ bëggoon sotti na loolu li ko waral mooy cëru ak joxe ak dëkkandoo ci la bokk waaye bëgg senegal ak bëgg Thiès ci la bokk directeur président Mamadou ni ko ñëpp waxee rek laa koy waxee yow pionnier nga ci def social fii képp koo xamante ne yaa ngi jël sa dërëm nga ne yaa ngi financé ay femmes xamal ne la moom mii inspiré na la te nag nit nit nit lu nit nit mën ngaa baax lool waaye alal ci xol la sax ku ko nangoo mën a jël jox ay nit ñoo xamante ne buñ paree xamoo li ci def xamal ne loolu nit ku yëwén nga nit ku kuy wut nit ku baax war na la cee compter man nag dama am obligation ci loo mënti nekkati nag muy politique ak lu mënti doon boo gëstoo gis ma li ko waral mooy sa rakk la parlage te loolu lu ma neex la leneen li mooy sama doyen ci lépp na bu dee dans le cadre intellectuel sama mag nga maanaam bu dee ne tamit ci politique bi tamit sama mag nga te ñu nangu ko avec plaisir li ma leen di wax nee ne rek ne ñii seq toog tey ngeen jàkkaarloog moom ay nit ñu baax lañu xam nga nit na ngay xamee ku baax la bu sa xel demee si moom rek sa continuer di dal mbégte dugg la joie nekk ci yow xam ne kooku baax la waaye gis koo xamante ne boo ko gisee ci télé li ngay laaj da naan kii lu mu waxati te nag jamono yi ñu toll politiciens yi mel noonu la ñu am wuuteeg ñii nga xam ne ñoom laa fekk toog nii ci fa tey donc nag olof yi nee nañ ginaar warul toppi kuy taxani bàyyi ku gi loolu nag ñi ko dégg xam dégg nañ ko ñi ko déggul tamit li ma leen ci bëgg wax rek mooy booy wër ñoo xamante ne dañoo bëgg Sénégal président. Mamadou Gningue mii kenn jiitu ko ci ndax tax waaye mate na ko xam-xamam mate na ko te iñaanu ci li ko ñëpp wax fi mu ne nii ñëpp liñ tàmm def mooy ku ci yàlla defal ay xéewal nga wut foo dëkk sori ñu nga say dëkkandoo yàgg waaye tey la leen gën a jege tey la gën a ubbi ay buntam tey la gën a yaatu tey la gën a toog pour déglu soxla jaam yi donc nag boo amee ku mel noonu da koy jàpp ak sa fukki loxo. oustaz li mu wax léegi kii ku tëjee rek a ci am solo. li ñuy def ci weeru koor bi nañu góor di ko def ci yeneen weer yi nga xam ne weeru koor yàlla nañu yàlla may ñu am jàmm ba pare doog a jëm ñu am jàmm man samay kàddu ci loolu laa koy def nañu am jàmm ba pare doog a ñaanal ñu jàmm parce que ku amul jàmm doo ñaanal ci jàmm donc tey je pense que ni Mamadou mon frère objectif bi atteindre ko wax nga waa koñ bi. wax nga waa daara ji wax nga ak ñi nga war a tamit am nga la war a seet si ñëw waxtaan ak yow ci bis kon daal dañuy delloo lépp teg ko ci yow siraatal mustaqiim di ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo fi bàyyi ñun ñëpp mu defal jàmm man moom sama waxi démb mooy sama waxi tey ginnaaw yàlla yéen koy samay waajur lu ma sëriñ baax la lu ma moom la lu ma am moom pour ma yóbbu moom ndax naa ngi jotaay su ma egg see ñu xam ne taalibe Sëñ Babacar egg si na muy dem ñu xam ne muy dem yàlla na yàlla def jàmm jërëjëf